ginnaaw gi ñu ko inauguré le 31 décembre 1985 tuddee ko stade de l'amitié 1992 coupe d'Afrique des nations fa ko amalee woon 1996 ñu daal di koy duppee président Léopold Sédar Senghor ngir sargale koko te di nag samedi 15 juillet 2017 ab jéye amoon na ci stade Demba Diop juróom-ñetti nit ñàkk seen bakken ñeneen ñi am ci ay gaañu gaañu gouvernement bi génn def communiqué daat na lépp loo xam ne nag jëm na ci wàllum stade yi dañu ko defaraat Tarba di jëwriñ ji nga xam ne moom ñu dénk wàllum tàggat yaram ginnaaw ba ko président doyloo tegaat ko fi moom nag waxoon na ne stade bi di stade Léopold Sédar Senghor dañ ko defaraat lu toll nag ci 30 milliards ci suñu koppar boobu ak léegi gisaguñu benn travaux bu fa am stade bi di jël lu tollu ci 60 000 personnes waaye gis nañu ne nag état bi nga xam ne moom la nekkee jéggi na dayoo ndax am na ay fissures te it nag gazon baaxul koy dégtal li nga xam ne mooy làmb ñu nax fa nag dajawaat ñuy wax ne tey jii jot na mesure yi nga xam ne nag waxoon nañ dañ ko jël ngir rekk defaraat stade bi jot na balaa beneen jiyee di ci amaat